bon maa ngi tudd Abou Ba di responsable politique APR euh, au niveau de Benno Bokk Yaakaar. Mhm. derrière le ministère Thierno Alassane Sall. Euh, maa nekk aussi président comité électoral bu Modakan Cité Lamy maa jiite comité électoral bi donc euh, bi ma fi ñëwee ba léegi ak centre de yi ma jot a def. Mhm. Euh, gisaguñ fi benn problème amagul benn incident te nit ñaa ngi génn di voter si quoi. Mhm. constaté wu benn irrégularité tamit. non pour le moment constaté ko tout se passe bien ñi ñaa ngi voté si xëy na nag euh, génn guñu xam naa dañuy xaar après midi bi pour que ñu añ ba pare mën a ñëw voté si. ñu ngi leen di tuumaal ni da di jënd nooy yow lan ñuy wax loolu lan moo ko donc loolu waxin la rek euh, man gisuma ko ku fi jënd euh, non. Euh, le président Macky Sall ñëpp xam nañu ni mu ñëwee ci nguur gi. dafa liggéey dem fekki askan wi convaincre leen ci programme ba ñëpp votel ko ñun loolu la ñu xam waa APR xamuñu jënd bulletin nit ñi xam nañ li ñu war a def. xam nañu lu ñu war a voté. donc gisuma kenn ku bokk APR wala benn bokk yaakaar ñëw di di di jënd carte wi euh, non. gisuma ko xëy na ñoom ñooy wax rek te ñu koy wax aussi euh, li ñuy wax rek. Euh, wax ju bon dëkkul fa mu jëm fa mu jógee la la la dëkk quoi donc xëy na ñoom loolu lañ tàmm euh, ba di ko accuser nit ñi.